ñu ngi koy am ak Cheikh Ousmane Ndaw ñu lay nuyu xaasatan di la tey nag ñu ñëw ak yow si ay demande yoo xam ne taalibe Baay yàgg nañ di ko def mu jëm ci ci yow mooy ñu ngi yàgg nañoo def demande ci yow pour nga leeral ah, wax yi nga xam ne ñu ngi koy incaré na Cheikh Ibrahim moo xam ñu nekk ci biir réew mi wala ñu nekk ci bitim réew ah, bëri na ay wax ñuy incaré Cheikh Ibrahim te bëgg nañ yooyu yëpp incha allah nga ñew ci benn par benn defal ñu ci ay leral comme que ñu bari xam nañ ne ci pay bi jamono ji tay yow ya taxaw pour défendre Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ah, bok na ci waxe nak mbokk ma nga xam ne nekkul ci réew mi bitim réew la ne nga xam ne bari na ay wax yoo xam ne mu ngi koy wax ñenn ci salafi yi di ko daliloo nga xam ne moom la ñuy wax Cheikh Salih Suhaymi moom nag Euh, am na wax yu mu wax askan la ko Cheikh Ibrahim di attaqué Cheikh Ibrahim <coughs> kooku bëgg nañ incha allah nga defal ñu radd ci moom muy Cheikh Salih Suhaymi moom nga xam ne moom lañ gis waxtaanam jamono yi passé muy inkaare bay ci xat xasani bil ilmi wa tasrif in qultu kun yakun bila tasrif mu cay wax ne loolu pas-pas la boo xam ne ku ci dee ci kéefér nga de kon jël na wax jooju askan la ko Cheikh Ibrahim moom it mbokk moom wax na ne euh, tijaan bu njaaloo ak yéeféer yéeféeru mën na caa def dem aljana parce que nee na loolu bàyyi ko bind ci téeram bu ñuy wax asraar loolu moom incha allah bëgg nañ yow Cheikh Ousmane Ndaw nga defal ñu ca ci mbokk moom wax wax jooju ak mbooleem salafie yi ak seen njiit yi nga xam ne ŋàññi nañ sufiyanke loolu moom ay buntu lañ bëgg nga ubbi nañu ko <coughs> incha allah ci jotaay yoo xamante ne du doon benn jotaay du doon ñaari jotaay waaye jotaay yu bari lay doon mm-hmm. bëgg nañ nga ñëwal ñu si kon jotaayu tey bi incha allah si kàddu yooyu lay tënku ak mbokk moom radd lay doon jëm ci moom ak mboolem salafi yi nga xam ne euh, jàpp nañ wax ji wax ne mooy dëgg incha allah nga defal ñu radd jëmale ko ci moom te bëgg nañ incha allah nga defal nu ay épisode bu mënee nekk bu ko sa temps bi mayee ay épisode yoo xam ne da ngay radd képp koo xam ne day inkaar Cheikh Ibrahim rawatina mu koy jaaree ci ay mbindu Cheikh Ibrahim kon loolu moo nekkoon question bi tey incha allah ñu wax mbokk taalibe yëpp ñu xaar ko tey dégloo ko xel bañ koo dégloo xol wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala mawlana rasulillah sayidina wa xabibina muhammad ibn abdillah wa ala wa sahbihi wa man wala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu mbooleem ñuy seetaan ñu mënti nekk ci àddina bi di ziyaara cheikhina wa qudwatina mawlana cheikhul xayri xafisahullah wa raahu di ziyaara xalifatul am li ahlil fayda ki nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ci waa faydu bi ci zaman bi di ñaan yàlla yàlla guddal fan may koor muy Cheikh Mamadou Mahi ak mboolem am naaw Cheikh bi ñu <coughs> ziyaara muqaddam yi yëpp di ziyaara taaliba Cheikh Ibrahima yëpp di ndokkeel tamit comme ni ko waxee euh, demande bu yàgg la ñu ngi leen di wax ne ñu ciy liggéey liggéey bu yaatu boo xam ne bu génnee danañ ci gis lu raw seen jot ñun nag suñ dund gannaaw bu ko yàlla moomee ba pare ñu dañ ko jox addiya yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama gannaaw loolu ku jox sa dund addiya yonent bi diñ ko jox addiya képp koo xam ne dafa di borom xam-xam boo xam ne dafa uut yonent bi كشيخ تيار ديال الله عنه كم شيخ إبراهيم كم مولانا شيخ الخير كم يمين لوكال موكي آه شيخ سالي وسحيمين آه برم قم قم لا تي قم قم ديرايا موي قم تيري كن جوخ فرمولا تي غولف بي اكشي gox yu bari ci àddina bi ci rawatina ci xaraka salafi ci borom xam-xam yi dégg la bokk bokk na ci sëriñi docteur Ahmed Lo ci boppam moo ko waxal boppam kon ala kulli leen nit ku ñu ormal la ci xam-xamu téere waxam nekkul wax ju ndaw su fekkee dafa juum daanaka ñu bari dañuy juum ndax borom xam-xam bu tarxiisee danañ wax ne aalam bi mooy tarxiis bi ñu bari dañuy tarxiis ala kulli haal min al axwaal Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu amu téere bu ñu wax al asraar lam nettali tamit ne ab tijaan bu seeg koo xam ne du julit tijaan bi njaaro ak moom ci barke tijaan bi kooku dem àjjana yooyu du xale boo xam ne dëppoota alxuraan ak sunna te Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dafa wax ne man nataqa bi maa yuxaalifu alquran nukaffiruhu képp ku wax loo xam dafa utee alquran dañ koy weddi ndax ne xumaatu sharia ndax ñun ñooy aar shariatu in taaba wa raja'a fiimaa ba'du qabilnaa su fekkee tuub na mu doole gannaaw nag dinañ ko nangul Ibrahim radiyallaahu anhu moom wax na ne diine ji duhul lu mooy sunna xalli diinu xayru zikri wa sunnatu llati an al saxat fa tilka dawaa'i an asbax xilaafin bayna taaha wa xayrihi yaraa ul labiibun xayru ayni amaay Cheikh Ibrahim radiyallaahu anhu moom dafa tegoon tànkam ci alquran ak sunna euh, wax na ne man taraka shay'an min ash-shari'ati al-muhammadiyya amdan falyatlubu shaykhan xayri wa ana lastu bi shaykh nee na képp kuy sàkk ku bàyyi dara ci sharia yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci samay taalibe te fekk yaa ko tey su boobaa na nga uti beneen sëriñ man duma sa sëriñ Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu wax na ne wasaana ilahi nafsi dahra la ura aminu ila ma laysa fi sarai jaisa nee na yàlla protégé na sama bakkan ba xam ne duñ ma gis mukk ma nekk ci loo xam ne jaaduwut ci sharia Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu wax na ne amaa man yantasibu ilayna wa yartakibu shay'an min muxaalafati shariati almutahara alsharifa bi iqtixaamil muharramat wa irtikaabil mahrumat aw kama qaala fa ushhidullah wa ushhidukum anni bari'un minhu nee na képp koo xam da nga askanoo ci man ba pare nga toggoo dara ci loo xam dafa uute sharia bu laab bu te mooy di bëtt yu araam yi di toggoo manhiyaat wartikaabul manhiyaat biñ tere maa ngi seedal yàlla di leen seedal ne du sama ci jamono bu mu mën a feeñ nag man deñ naa ci moom donte dafa def intisaab ci man ne dafa askanal ci man mooy sëriñam du ma sëriñam ba pare naa ci moom wax feneen ne du ma deñ ci moom bi du gannaaw bu yàlla dañoo ci moom kon ci tënk kooku mooy cheikhul islam wa barakatul anam beneen bi ci tegu mooy dafa am ñu ñaaw njortu ci yàlla mbokk yu bari mbokk jullit yu bari dañoo tàbbi ci loolu rawatina gannaaw salaful awal mooy salaf bi njëkk nga xam ne mooy assaxaabatul kiram gannaaw boobu dafa am ba ga buñ demee ba ci ay siècle ci kanam dafa am aqida yu judd yu bees yoo xam ne natt koy indi mooy ay firaq yu bëri yu feeñ yoo xam ne ñu bëgg lu baax bëgg a tënku ci alquraan sunna teg nañ ay qaayida yoo xam ne la leen tax a jóg jubluwaay bi mën naa nekk lu baax yéene ja waaye ay njuumte daf cee am bokk na ci lu Ibnu Qayyim wax ne xam-xam mooy lu wax ay yonent ak saxaaba wax jooju tarxiis daf caa am da waxu yàlla moom kenn du ko laajal waxu yonent kenn du ko laajal argument yàlla dafa wax ci alquran bu ngeen werante da ngeen dellu ci alquran sunna boolewu ci saxaaba yi te loolu aqida boobu pas-pas la boo xam ne salaf yi dañ koy gëm kon loolu pas-pas bu bees la aywa léegi beneen bi ci tegu mooy a wa ala fahmi salafil umma alquran ak sunna ci dégg-dégg salaful umma salaful umma ñu def ko ñetti kuréel ko defee nag mu mel ni kon gannaaw ga yàlla du kenn dégg-dégg loolu pas-pas boo xam ne danañ ko ñëwal ay jotaay dëppoowut ak alxuraan ak sunna kon am na ay yu bees yoo xam ne aqiida bidaa ba tax na boo waxee dañ laa la gisuñ ko ci alxuraan gisuñ ko sunna gisuñ ko fu ko saaba waxee bu mel ni dégg-dégg yi dañ koy tënk saaba nag yonent bi waaye luñ créé bees la muy ay aqiida xam ne bidaa la kooku dinañ ko ñëwal ay jotaay loolu nag ñaaw njott ci yàlla la ne daal yow doo am dégg-dégg yàlla du la jox dégg-dégg wala saxaaba yi rek ngay jox dégg-dégg xanaa indi seen yaab di bi mu mel ni kon yàlla tamit mel ni daf leen ca fekk rek ba tax na bëri na lu ñuy weddi ñàkk dégg-dégg moo leen ci eh, mu ngi aju ci qad qassani bil ilmi wa tasrifi إن قلت كن يكون بلا تسويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني قليلا فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله إلى ba wax ja jeex su ko defee wax ji da nga ci gis benn benn baat wala benn jumla in qultu kun yakun mu mel ni loolu moo indi problème wax wala moo leen indil problème fii nag mbokk moomu di Cheikh Saale ak ñu dul moom nga xam ne yàlla mayu leen dégg ñu ko déggee dañ ne bàyyi kon dafay oote na moom yàlla la parce que yàlla lañ xamee woon kun fayakun aywa kon mu mel ni da laaj kon ndax am na benn mbindeef bu mos wax kun ci yenentu am na benn yentu bu mos wax kun su fekkee ne yenentu wax na kun ndax ñoom dañuy def yenentu bi ne daa oote yàlla wala dañ koy yéefeerloo wala dañuy seetee nuñ taawilee kun ga Eh, loolu mooy point bu njëkk buñ buñ soxla point boobu nag buñ ko indee ba pare danañ xam ne kon kun yàlla wax na ko waaye mbindeef wax na ko te bu ko mbindeef waxee jubluwu ci luñ ci jublu ne moo waaye tamit ci waxtaan bi danga ci gisee ne Cheikh defut te dëggut setantal ci wax jim liir te wax la joo xam ne li ko jiitu ak li ñëw gannaam ak ak wax ji amul lenn lu ci bàyyi wax luy tegtale ne dafa oote uluhiitu amul ca boo koy fii da ngay déparé ca naadaytuhu bil ismil azam su dina la dugal nag ci lubbu mawduu naadaytuhu bi ismil a'zam da nga dem ba kanam mu ne la taxaddusan bi nafaxaatil baari kon dafay waxtaanee ëppin xiwal yi nga xamee ne yàlla mi ko bind moo ko xiwale danga dem ba ci kanam mu ne la imtala alxawdu wa qaala qatni mahlan ruwaydan qad mbalka mi fees na ma ne doy na ndànk ndànk dalal yow mi sol sama biir fees na loolu du uluhiyya loolu du ak yàlla ci biir waxtaan bi dana la wax ne xad xasani bil ilmi wa na ma xam-xam ak tasawufaat baat yooyu wax na la ne kon oote suñu borom jagleel na ma xam-xam te yàlla dafay jagle ñu ko laajee ñooñu yàlla yi ñaan la daf ne ahlul quran wa xaasatu mooy ñooñu alquran ak xaasiya kon yàlla dafa am xusuusiye bu ñuy defal ay jaamam ba tey Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wax na ne jagle bi yegg na ba nga ne su ma waxoon nekkal day nekk ba tey ne damay wax mu nekk mu nekk waaye may gi yegg na foofu in kunt dafa indi xarfu shart kon du aadam moom Cheikh Ibrahim mooy di wax kun du aadam nee na am na jagleel am na tasrif tasrif mooy taxyir mooy taxwil dégg nga wa tasrifi riwaax ñëw na ci alquran ayo kon su ko defee lakin ni taqastuhu wakila boobu tamit dafay gàggante Seex Saalex bàyyi nee na waaye nag jël naa yàlla muy ki ma ci moom kon ba tey dafay wane ne moom du yàlla yàlla ko jagleel al ilmu wa tasrif mu mënoon a jëfandikoo loolu yàlla jagleel ko lu mu soxla rek am lu wax loolu am bu nekkee ci lu neexut bu waxee amee lu mu wax loolu soppeeku nekk di lu neex dégg nga waaye nag dégg nga mu ne ma jàll yàlla muy sama wakiil ndax moom mooy wakiil lakinenu taqasuhu wakiila te adduban faxtaarani qalila ma jël yàlla dégg nga def ko muy sama wakiil na am teggin ci kanamam te loolu mooy aada yenentu yi nañu am ay mbir yoo xam ne suñ tàllalee loxo suñ bëggee luñ bëgg mu am léegi buñ tàllalee loxo am ñu murum turu yàlla def ko léegi dégg nga waaye te am xarit ak noonu moo tax kon ndax baatu kun ndax baatu kun ku dul yàlla mos na koo wax loolu mooy premier point dafa am ku ñu wax Shaaraani dafa laaj sëriñam alxawaas ne ko ndax am na kenn ci wàllu yàlla yi ñoo ne am nañ tasaruf bikun ci àddina gi ñu nekk imaamu Shaaraani na ko naam am na waaye wali yalla bu ko am rek mu ko amé ci donu gu donu donn da nga am ci hadis yenentu bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne borom xam-xam yi donu donn yenentu yi kon wiraasa ñoo na fof gannaaw yenentu bi nak borom xam-xam bu ñëw man nga donn yenentu ci lepp dess de aramal ak daganal ak di indi ay atté yu bees waya man ko donu ci point yu bëree bëree kon baatu wiraasa donn yenentu am na walil waaris maalil mawrus mu ne ko waaw loolu am na boo demee ci asalafiyuna même xataa Cheikh Saalix moomu même xataa suñu Ahmed Lo d'accord nañ ne ku dut yàlla wax na kun ñoom ñëpp d'accord nañ ci mooy kan mooy yonentu yàlla Muhammad wax kun te ñoom lu tax yéeféerlewuñ yonentu yàlla Muhammad lu tax waxuñ ne bu dee ci lee yéeféer la ba demee ci ñaari riwaaya riwaaya Abu Zarim al-Ghaffaar ak riwaaya Aba Xusayma ca xaswatu Tabuk yonent bi dañoo toog mu yàgg am benn waay buy ñëw yonent bi ne kun Abaa Zarin riwaaye bii nag dañuy wax ne isnaad bi dafa am problème dañuy d'accord ak ñoom foofu waaye am na beneen riwaaye mooy Abaa Xusayma dafa am góor gi ñëw yonent bi ne kun Abaa Xusayma fa kaana Abaa Xusayma léegi nag kon su ko defee ñoom nangu nañu riwaay bi ne yonent bi wax na kun fakaana yonent bi wax nekkal mu nekk loolu Aba Xuseyma day ñëw kenn xamut kuy ñëw am na kuy ñëw kenn xamut kuy ñëw yonent bi ne nekkal Aba Xuseyma mu soppaliku mu nekk Aba Xuseyma kon riwaay bi moom salafi yëpp daa ko nañ ci riwaay bu am isnaad bu wér la ca xaswatu kon yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na kun kon léegi nag su boobaa nag dañuy taawil kun ak yonent bi soo ko taawilooyee da nga faaw nga taawil kun ak bàyyi ci rek la wax dafay am ak jubluwaay wax wax dafay am ak jubluwaayu wax mu mel ni gis mu wax ne kun fayakun rek ñu ne kon képp ku wax kun fayakun rek da ngaa oote yàlla wala da ngaa weddi yàlla wala da ngaa xëccoog yàlla loolu loolu juum-juum la exemple boo xam ne mbokk yi nag man nag ayuma ci arab noonu ndax génn woon jàngi ba tax na nag taale baay yi nga xam ne jàng nañ rawatina dem Égypte nekk ci pays bi mën a bind mën a def ay maqaara mën a bind téere xanaa su ma defee vidéo ñoom danañ bind mais en même temps muqaddam yëpp tamit am nañ ndigal pour jël sama waxtaan di ko jàngal taalibe yi comme ça ñu mën a défendre Cheikh Ibrahim ci coin bi ootuma dara seen kaw nag waaye dama leen ko ñaan bu kenn rëy pour mën a bunt boobu ubbeeku ci moom ndax képp ku déglu waxtaan bi rek ay buntu dina ubbeeku ci yow loolu moom laa sek aywa kon su ko defee danañ ñëw ci joxe ay exemple yo xam ne euh, exemple yu mën a laal daj la yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci alquran da nga fekk yàlla tuddee ko rauf tuddee ko rahim parce que yàlla daf ko def daf ko tuddee gi ñu ko tuddee daf ko def yàlla hmm? te rauf ak rahim min asmaillahi alxusna laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim kon ndax yàlla dafa wax dafa daf ko tuddee tur bi tudd gi mu tudd raxuuf rahim ndax dafay nekk yàlla kon ab tur mën nga ko bokk yàlla te la muy firi ca yàlla bokk te la muy firi ci yow kon léegi laaj bi dafa am la fa laaj dikk ma joxaat la ñaari exemple ci ay turu yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam danañ koy ooye alhaadi yàlla yi danañ koy ooye alhaadi ndax ñun ñu ooye yonent bi alhaadi dañoo jàppee yonent bi yàlla borom xam-xam yi danañ leen di ooye alaalimul alaama te al alaalim ismun min asmaillah turu yàlla la ese kon tax ñu ne kii dañ koy def yàlla wëlli bi danañ koy alwali te wëlli ismun min asmaillah waaye bu ko yàlla tuddee lan lay firi bu ko jaam bi tuddee lan lay firi naka noonu jàng ci hadis man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ku yàlla gindi kenn mënu laa réeral ku yàlla kenn mënu laa gindi kon yàlla mooy gindi yàlla mooy réeral ah yonentu ci alquran fekk wa yaqul ladina kafaru lawla unzila aya min rabbihi innama anta munzir ولكل قوم هادي لولا آية لا أو نتوني أنك وقنا ما هادي في نيوم بعد ذلك نكوك يا الله بعد ذلك نكوك يا نمتلا بس كما مو الهادي نكن نوني يا الله يا الله وحنا في القرآن ينتم صلى الله عليه وسلم نكو دونغا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين يومنا جند كل نهاية لا جند كونه تبنا آية من وإنك لا تهدي yow يأي جند nit سرات مستقيم في علم ويجند إنا gindi inna ima shakira wa ima kafura kon yàlla moom mooy gindi ci yoon bi waaw kon ndax aaya ji la daa saxal yenent bi ne yàlla kon Cheikh Saalix Sohaybu ak ñu mel ni ko problème mu amuñ problème mu jàng problème mu dégg sunna la te loolu daf lay indil problème bu rëy xam nga lu tax parce que boo nee dégg-dégg saaba yi te saaba yi lañ dégg binduñ ko muy benn kan moo a indil téere boo xam ne dégg-dégg Abu Bakar yëpp lañ ci ci lislaam boo xam ne dégg-dégg Omar yëpp lañ ci bind ci diina kan moo ma indil téere boo xam ne dégg-dégg Ali yëpp dégg-dégg Osman yëpp dégg-dégg Ibn Abbas nga xam ne ba ñuy dee yóbbaale benn dégg-dégg buñ bindut kan moo ko mën a indi yow bu ci nekk ay benn benn rek nga ci am yow benn benn boobu nga ci am rek la dégg ci li sax moo tax léeg-léeg dañuy nekk ay kaw kaw ci ci diine ji mooy niveau primaire su ko defee dara bu xewee gannaaw salaf yooyu ngay wax te saaba yi fekke wuñ ko kuréel ñetti kuréel ko léegi bu fekkee seen dégg-dégg ngay utiliser comme waxuñ ci kay bu ci wax wala de saxaluñ na ñoom dé dëgg la saxaluñ na du dëgg yow kon ci waxe kon loolu point la bu am solo naka noonu yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu rañaan dem Medina moo Abubakar yonent bi moo ci kanam Abubakar ne ci gannaaw Abubakar kuñ xàmmee la góor guñ xam la mag moom ràññee la léegi nag benn waaye ne Abubakar waaw góor gi nga xam ne moo sa kanam nii kan la Abubakar na ko haaza rajulu yahdini as-sabila moo may gindi ci yoon bi waa ji lim ko tontu mooy kii moo may wan yoonu Medina te fekk lim ci jublu mooy kii moo may yoon yoonu siraatul mustaqim kon indi na baatu yahdini te yàlla mooy gindi kon baatu di buñ ko indee ci yonent bi def yonent bi alayhi salaatu salaam na ne ruba amili fiqiin laysa bi fiqiin bëri na ku yenu texte alquran ak hadis te fekk dégg ko te su ko déggul dana am mbir yu ci kanam mu jéem ko atte du ko mën a parce que am dégg-dégg ruba min fiqin ila man huwa afqaw minhu bëri na koo xam dafa am dégg-dégg di ko yóbbul ci koo gën a dégg-dégg ko ëpp dégg kon saxaaba yi ñoo ñu indil taxi yaa ngi dégg ñoom ñoo indi alquran ñoo indi hadis ñoo ko jàllale tasma'una minni wa yusma'u minkum yusma'u man yusma'u minkum ilax waaye da ngay gis kon ñaa ngi koy yóbbul ko gën a dégg yaa ngi dégg wax bi de kon am nga ci ab dégg tuuti waaye da nga koy yóbbul ku la gën a dégg kon julli ñi ñetti xaaj lañ ñeenti xaaj lañ koo xam ne mokkalut texte ak ku mokkal texte te du am amu dégg ak ku mokkal texte am ci as dégg di ko yóbbul ci ku ko ko gën a dégg mooy ñeenti jullit léegi yow su fekkee danga bokk si ñuy mokkal texte yi te duñ dégg nag déglu moo la war waaye waroo jàngat waroo atte seen naa ko ci alxuraan su ne gisuma ko yow amoo dégg ko amul dégg mënta balal dara te dañoo alxuraan su ne ala fax mi as saxaaba kon yow bokkoo ci saxaaba yi amoo dégg kon da del laajte te bul at su Cheikh Saliou Sy mi waxee nga ne ah Cheikh Saliou bokk ci saxaaba yi amu dégg su seen borom xam-xam yi waxee nga ne ah ñii bokkuñ saxaaba yi amul dégg nañ topp xaani def rek man yulaa bi xayran yufaqihu fi diin kon loolu point boo xam ne bu am solo la ma jox leen beneen point boo xam ne dafa fang daf ne fang fangaaral waxi olof la fang fangaaral wala ñu ne watt wattaaral wala dàng dàng dàngaaral waaw xàññi xàññaaral yooyu ay baat la aywa léegi kon su ko defee mbokk yi boo demee ci alquran alquran ñëpp jàng nañ ko da nga gis méthode bi nga xamee ne sufiyanke ñu ngi koy waxee lenn ci yonent yi di ko waxee jëlal ku mel ni yonentu yàlla ibrahima yonentu yàlla ibrahima falama janna alayhi laylu raa kawkaban guddi gi dafa lëndëm tërës mu gis biddiw haada rabbi sama borom aywa kon loolu kon la salafi yëpp nañ dem jàng aaya ja alqaan yàlla mooy bi guddi gi lëndëmee dafa gis biddiw bi ne xaasaay rabbi dégg nga bi suux mu ne bëgguma luy suux kon daa mel ni biddiw bi kan la wax wala déet léegi nag ba weer bi soo ñëwee mu ne xaaza rabbi xaaza akbar bii gën mag ba weer bi sooxee mu ne bu ma yàlla gindiwut danaa bokk si ñi ñi réer bi soo sama borom dégg nga ba jant bi sooyee mu ne léegi boo joxoñee ab mbindeef ne xaaga rabbi te fekk jubloo ci mbindeef ma wax ja ci kaw daa niiru ak kufru waaye fekk du kufru sufiyanke yi foofu lañ foofu la seeni wax yi nga xamee ne doo dégg rek comprendre ko wala génnee te fu yàlla wax ci alxuraan danaa Ibrahima moo sa bokkaal te Ibrahima joxoon na biddiw ne xaasaa rabbi kon loolu lan lay teg kon olof da wax bul dégg tëli rek na matt ba damm man dama rus sax ko alpha tegee parce que alpha waroon naa am dégg-dégg yaa ngi dégg wala mu dem jeexaal li mu ci alxuraan ba xam ne am na wax yoo xam ne gan lañ bu lañ nañ koy waxee lañ cay jublu ca yàlla bu ko waxee loolu lañ loolu lay jublu ci nit ki bu ko waxee waaye se dommage niveau yi bokkuñu loolu nag point la bu am solo mu mel ni suñ jotaayu tey bi mën nañ ko tënk su ko defee jéem a am yuñ kii su ko defee suñ jotaay bii di ñëw ñu am ci ay point yuñ ci tax al yi dañu wax ne abadari alxafaar moom dégg nga saxut ci ne yonent bi wax ne kun abadari loolu isnaad bi seen bi dafa am problème waaye aba xusayma nag moom mu ne moom chaîne a dégg nga athaabit la isnaadan athaabitu isnaadan dafa sax lu wér la léegi nag mu des nag euh, lan mooy lan lañ koy ta'wile ñoom lan lañ koy ta'wile léegi nag suñ ko ta'wile ñoom ci yenent bi rek nañ ko ta'wil ci wëliwu yàlla bi rek mu jeex aywa ñu ne léegi kon yenent bi alayhi salaatu wasalaam waxee nekkal diw daytalu mbir mi mooy mébét na mu nekk diw lool lañu wax ñoom kon léegi kon la nga naan kon kun ci jaam bi mooy nga mébét yàlla nekkal lii fa yakunu yàlla nekkal ko yaa ngi dégg kon su boobaa talab la talab sàkku yow yàlla nekkalal lii yàlla nekkal ko ci saasi bi laa taswiif du ko sawfaal du ko xaar yaa ngi dégg léegi bu dee kun ci yàlla nag yàlla danaan kun amru la nekkal mu nekk amru ak talab du benn mu ngi mel ne rek exemple yaa ayyuhaa llaziina sallu sallu kooku amru la julli waaye boo ne allahuma salli baatu salli baatu amru nga utilisé waaye jublu ci amru allahuma yow yàlla salli yal nga julli kon kun amru la rek bu ko yàlla waxee amru la bu ko jaam talab la sàkku yàlla defal la ko loolu tam mbokk mi nee na léegi nag yenentu bi alayhi salaatu wasalaam ak yenentu yëpp daan nañ taxaw dëgg nangam am léegi ñu taalal sen loxo am ñu murum tur mu am léegi léegi loolu nag dégg nga nitu yàlla dégg nga rawatina ñi nga xamee ne ay wëliyu yàlla lañ te wëliyu yàlla mooy koo xam ne dem nga ba yàlla bëgg la nekk sa nopp ya ngay dégloo déggeetoo léegi ci àddina waaye ci yàlla ngay dégloo nopp sa nekk sa nopp ya kuntu samaaw ma nekk say say nopp say dégg sa dégg ga maa ko nekk man yàlla maa nekk sa gis ga loo ne jàkk bët yàlla ne jàkk bët maa nekk sa loxo yi maa nekk sa tànk yi kooku nekkatoo nit comme nit ñi léegi am na lu rax ci yow te yàlla koy def ci bëgg gi mu bëgg jaam bi mbokk yi Cheikh Ibrahim Niass ak Cheikh ak ñu mel ni ñoom ñooñu yàlla def leen bëgg boroom xam-xam nag danañ ko bëggee ci ñaari mbir danañ ko royee danañ ko bëggee ci xam-xamam danañ ko bëgge ci mbëggeelu yàlla moo jaa loolu mooy lan yàlla moo ne jaam bi bu ma ko bëggee dama naan jibril diw bëgg naa ko bëgg ko jibril bëgg ko ne malaaka yi yàlla bëgg na diw bëgg leen ko yàlla may ko bayre ci kaw suuf ñi ñi bëgg loolu lu koy maye bokk na ci ay yàlla wax na ci alquran ne inna allazina amanu wa amilu salihat sayajal lahum rahmanu wudda ñi nga xam ne dañuy gëm yàlla ba pare di jaam jëf-jëf yu baax yi yàlla dana leen defal bayra cafeel ñëpp bëgg leen yàlla bëgg leen malaaka yi bëgg leen nit ñëpp bëgg leen ci kaw suuf léegi nag Cheikh Ibrahim Niass yàllaa ko bëgg fa isa ahbabtuhu boobu lañu attan moo tax Seexu Tijaani yàllaa ko bëgg ma liy wane ne yàllaa ko bëgg mandarga bi al imaamu Maalik ñun ñëpp bëgguñ ko la jaral ñu jënd ay bee ji xabru imaamu Maalik ah ah maama Ibn Abdul ñoom bëgguñ ko waaw kan si ñoom la jaral ñu yenn ay béy yu bëri dem ziare ji bàmmeelam cheikh al islam ibnu taymiya ñoom bëgguñ ko kan si ñoom la jaral muy ziare ji bàmmeelam te koo si jox paas ku ci ku ci nekk yaa ngi mébé dem ziare yenent bi kon mbëggeel yi bokkuñ kii yàllaa ko bëgg joxe sa kaw ndigal nañ ko bëgg du ay inkaan nit lañ koy bëggee du ay nangam lañ koy bëggee ci ay baada la ko amee léegi nag ñaata yoon ngay gis ay nit jënd bi avion dem ziyaare ji Fass Cheikh ñaata nit ñooy jugee ci àddina bi di ñëw Medina Baye di ziyaare Baye di buuxante parce que loolu mooy mandarga yi yàlla bëgg na leen jam yooyu yonent doon wax jaam yi ci lañ bokk waaye eh, eh, soxay mi mii daa di tukki bu yàlla dimbaloon kenn mës a jënd bee di ko siyaare ci kon maa ngi leen di bàyyi leen xol addis boobu yàlla bu bëggee diw day wax nit ñi bëgguñ ko ñoom dañuy jaaxle lu tax nit ñi bëgg diw parce que diw dafa tënku ci alquran ak sunna jaamu yàlla ba yàlla bëgg ko bëggee la xaas ne jibril bëgg naa diw bëgg ko malaaka yi nañ ko bëgg mindee fii nañ ko bëgg yàlla bañu noonu nuñ bëggee bàyyi ci àddina bëggeewuñ ko ibnu taymiya bëggee li yeggul foofu bëggeewuñ ko dégg nga maama ibnu abdul wahab bëggeewuñ ko sooy mii bëggeewuñ ko dégg nga seen sëriñ ya dégg nga albani ak dégg nga ibnu xoos xoosaymin bëggeewuñ ko il faut que ñoom ñu comprendre xeetu mbëggeel yi ci yàlla bokkuñu beneen bi ci teg koo xam ne boo ko noonu yàlla nga déclaré guerre nekkatul ku ndaw comme nit ñi man aadaa lii waliyan faqad aazantuhu bil harbi nee na nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkutoon koo xam ne lu mu bëgg danaan kuñ mu ngi layal mu ngi lay mu ngi lay di waaw moo taxit boo seetee benn yoon lañ dégg ñu ne yonent bi nee na kuñ bàyyi ñees yàlla jagle na ma kuñ bu mu ne mu ne mu nekk waaye bàyyi naa noonu jàpp yàlla muy sama wakiil yow da ngaa dégg fenn fu bàyyi waxee kun benn yoon ba ñaari yoon téere bàyyi yëpp gaa yi day ñaan rek kon su ko defee kon mbokk mi mu ngi layal Cheikh Ibrahim te yiwu ko nitu yàlla yi tamit dañuy ñaan bay bëgg a dee te mën nañu jëfandikoo kun waaye bu fekkee yàlla loo bëgg mu am loo bëgg mu def nga def ko te nga nga nekk ci loolu rek heure eh, boo bëggee ne yàlla defal ma naa yàlla defal naa bu yàggee bu yàggee mbaa mbaa yow doo am problème mbaa doo jàpp sa bopp yàlla hmm. ah dañ koy bàyyi tattastuhu wakiilan te loolu alquran la alaa tattaxisu min duuni wakiila moo tax xawaas xam nga tamit taare bàyyi war nañu gën a jàng boo gisee xat-xasin yi da ngay foog ne loolu walu yàlla yu bëri dañ ko wax amri bi amri laa in qultu dégg nga da nga gis eh, taalibe bu laaj xawaas na ko waaw ñoom ñàkk def tasrufaat eh, eh, wala bàyyi gi nga xamee bàyyi nañ ko def tasrufaat dégg nga ñu ak dégg nga ak def ko di def tasrufaat wala ñu ñàkk koy def ban moo ci gën a xawaas na ko bàyyi def tasrufaat moo gën a yey ci ñoom dégg ñu jëfandikoo ala taqsu min duni wakilan mota tax bàyyi bi mu ne taqastuhu wakila mu ne ko nak ñu def lolu fa tarakul haqq taala yatasarafu lahum biha ñu bàyyi yalla yalla di def lu ko neex Denga yi ñu koy encaissé nga nga gis bay ne de nga te eduban faxtaara ni xalila ñu nek ay wuli yalla ñu nek ay xaritu yalla lu yalla def rek d'accord nañ xarit moom mooy ki nga xam ne loo ko def rek da day nangu kon su ko defee nga gis ne kon nekkuñ ci naan kun kun kun rek bàyyi sax waxoon na ne ci njëlbeenam su amoon su amoon ndigal ci tasawuf du tasawuf ci affaire addina yi xaalis ay milliards waaye ci xolu jaam yi rek defar xol rek ci lay def tasawuf loolu mu ngi ci joxe wasaay kon loolu su ko defee mbokk yi nga gis ne kon surtout taalee bàyyi bëri na mooy dégg dañuy fane bàyyee ko njëkkoon fekk wax nañ ko bu yàgg dégg nga xar xasene binaan mi wa tasrif am na ñeneen ñu ko amoon jagle bi ñu bàyyi dégg nga in qultu kun yakun bila tasrif du yéex dégg nga am na ñeneen ñu ko am dégg nga laakin ni taxasu wakilan ala taqsu min duni wakilan demal sootul isra yi dañ koy bàyyi te aduban bàyyi mu ne adaban bàyyi mu ne te aduban waxtaare ne xalila yàlla tànnal may xaritam yàlla moo wax ci alquran mu ne dégg nga euh, yàlla moo wax ne wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ci hadis ne euh, dafa indi ñaari poin alfaraid wa nawafil léegi nag léegi kon su ko defee amalu saalihaat yi nga xam ne moom la gaa di def ndax faraid yi faraid yi la wala nawafil point yi foofu la nekk boo ñëwee ci mën a li ma gën a bëgg ci li ma farataal ci jaam euh, li ma fara li ma farataal ci jaam bi li ma a bëgg ci jaam mooy li ma farataal dégg nga parce que loolu mooy lim la sant danga ko war a def waaye nag jaam bi du deñ di def nawaafile ba mu bëgg kon lim la sant ci la lay bëggee waaye lim la sant ci ngay amee àjjana kum neex na ne damay def li yàlla santaane parce que loolu la yàlla gën a bëgg fekk àjjana rek nga bëgg yow bëggoo yàlla waaye kum neex mu ne ajjana laa bëgg ak yàlla def faraay yi def naafile naafile yi nag ci la la di bëggee moo tax nit yàlla yi foor ci jaamu yàlla jaamu yàlla nag mbir yëpp a ngi ci jaamu yàlla mbir yëpp a ngi ci defee nag am na ko am na ay tur yàlla yoo xam ne yàlla xamalu ko kenn am na tur yàlla yoo xam ne yàlla wàccee na ko ci téere yi am na tur yàlla yoo ne ay jaamam la tànn jox leen loolu ron na ci hadis aw alamtahu ahadan min xalqika hadis bu wér la yow yàlla ñaan ci bépp tur boo tuddee sa bopp wala nga wàccee téere bi wala nga xamal ko lenn say na tur yoo xam ne du turu xaas la turu am tur yooyu soo sa wooyee yàlla mu uyu la léegi moo naa dee tur bi ismil a'zam mbokk yi suñ jotaay bi di ñëw ragal naa ci foofu lañ koy ubbee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yal na ñu yàlla defal tawfiq ilaahi wa aleykum wa wa barakaatu